Si ku se mës pour viol certificat médical bu génnee mais y a pas eu de rapport sexuel il y a pas eu de sperme y a pas eu tout est négatif mais immédiatement dañ lay disculper dañ naan kii kon deful dara dañ ko bàyyi mu dem ne serait-ce que pour cet élément là waron nañ mën nous dugg ci combat bi wax ci loolu puisque c'est un élément objectif pour vous c'est des techniciens assermentés. Mhm. ñoo xool la jeune fille décider loolu. Mhm. donc buñ ci duggoon duñ dugg buñ waxoon ci loolu. Mhm. duñ wax ci lu ñu xamut duñ wax ci lu leen wóorul. mais ils n'ont pas fait parce comme je dis c'est pas grave man merewuma ci parce que j'étais en mesure man sama combat ak sama xeex mënoon naa ko gàddul sama bopp te gàddul naa ko sama bopp waaw geeral nga ko sa bopp mais mais mais mais euh, euh, Sitor Ndour euh, maa ngi lay wax sans commentaire yi Euh, xam naa ne fa nga nekkoon euh, de temps en temps nga dégg commentaire yi waaye nga dégg euh, doon nga dégg wala sa mbokk doon nañu dégg ay commentaire yu metti ñu ñu la commentaire ban commentaire nga mës a dégg ci affaire bi mu nekk bu la metti mais le seul fait le seul fait mm-hmm. d'affirmer que Sitor Ndour a violé une jeune fille Lalu ku ko mës affirmer ma yek ko ma yak ko yek yaa may de nek na lo xamne luma metti la puisque euh, dama foog ne nit ki boko xamul da nga wara def dank ci ay mbiram boko ko war nga meuna taxaw sédéné liñu koy jiñ kat wul ak liñu xam ci mom au moins man nga sax wax ñaka wax ne defuko mhm. mais da nga naan jëm ji ñu xam ni ak liñ koy jiiñ ni ah yaakar nañ ne du mhm. ça c'est le minimum mhm. pour quelqu'un d'objectif bu war exprimer solidarité donc commentaire yi ci don tek yépp yépp pour man c'était la même chose kabaal la woon kabaal bu mag complot la woon donc il fallait que mu manifesté woo noonu mhm. heureusement que je suis dépassé 45 jours en prison euh, dama développé samay réflexe de waaw samay capacité de de de résistance mhm. pour vivre une vie normale en prison Je mhm. dinaa ñëw ci ce séjour carcéral Je euh, dama suis juste rek euh, comme nous l'ai dit, émission bi li ma ci gën a euh, li nga dund mu am mu def tache d'huile am ñu mu servir d'exemple parce que euh, defe naa ni ku musul dugg prison tamit xam nga ku musul dugg prison et euh, souvent nit ñi dañuy foog ne ñun ñuy siiw nous sommes des extraterrestres dañuy xëy suba rek agsi fii ñu agsi te xamuñu ne am na fu ñu jaar ba tax ñu ñëw fii ndax pour nga mën a endurant mën a résilient il faut bien nga am foo jaar te expérience yooyu man moom laa bëgg ñu koy partagé ak suñu doom yi déglu euh, moo tax ma bëggoon ñu ñëwaat ci euh, euh, phase bu importante nga xam ne ñu bëri nañ ko redouté muy phase u support ñu woo jox la convocation wala woo en tout cas ne la ñëwal police nga ñëw ñu auditionné la ba pare placé la garde à vue sa première nuit garde à vue support ça s'est passé comment oui Aysatu xam nga bo gëmee yalla mhm. lu teggu sa kaw rek da nga da nga naan ndogal la. Mhm. puisque yalla rek ay décidé. Mhm. j'ai vécu tout ça avec beaucoup de sérénité. sérénité sax bu jaaxal ni puisque man bi coow li développé woo. def une vingtaine de jours à Fatick. nit ñangi ngi fi maa campagne pour les législatives pour que sama camp gagné mhm. bi ma le lendemain lañ ma convoqué. dañ la téléphone dañ la jox non téléphone tout juste. Mhm. il faut se présenter à la brigade de gendarmerie Je présenté wu. bon mais est ce nga li affaire bi niveau mais waru fa ag. Tang mhm. complot ak. xam nga li waru ag puisque. ñaari certificat médicaux lu ñu xes ba wax te li ñu wax euh, méngoo waratuñu ci woon sori mais aussi xamoon naa ne am na lu ci laxasu war na mën a àgg fu sori donc loolu dama ko xaaroon donc muy convocation bi muy garde à vue bi ak yooyu amul lenn lu ma fa wax luy nuroo saalit wala tiit wala ragal situation bi ma ne j'ai été très avare en mots d'ailleurs ah waxu lu bari déedéet doo waxuma lu bëri. Mhm. mais nous bañ na xanaa loolu tax ñu placé la en garde à vue man dama bëgg xam étape ñu placé ñu ne la vous êtes en garde à vous genre euh, tey doo ñibbi kër. oui. loolu bañ la ko annoncé yow lan nga ressentir intérieurement et puis aussi cette première nuit de garde à vue ça s'est passé comment fan nga a une condition nga la jàllee. oui ainsi de suite. Ah, Aïssatou xam nga viol bañ ko criminaliser ak léegi. Mhm. ñi nekk ci processus bi yëpp kuñ ko jiiñ boo ñëwee ba ñu entendre dañ présent dañ lay présenter procureur procureur mettre la en détention provisoire mhm. kuñ ko jiiñ rek mhm. balaa ñuy xool dara ñu dem placer la en détention provisoire ba nga nekk prison mhm. ñu soog la convoquer, interrogatoire tijji dossier bi di xool accusation viol moo diis moo mel noonu et d'ailleurs c'est une arme utilisée aujourd'hui par les femmes pour détruire leur adversaire jigéen ñu bari dañ ko def benn arme de destruction boo xam ne boo nekkoon ak ñoom nekkatoog ñoom boo leen diggoon takk takk par exemple takkoo leen bàyyi leen fi bu ngeen histoire ak yu demee noonu ngeen am un conflit quelconque souvent arme boobu la ñuy utiliser puisque buñ la ko accuser rek munoo loo mën a wax munoo wax lu dul defuma ko ñom aussi leur première réaction lan la wara accusé ñu ko ci docteur docteur même sa bu ñi arme. maintenant li ngay wax ni dina am dina am lu voilà li ngay wax vivre sama sama première nuit euh, garde à vue. Mm-hmm. puisque en réalité man euh, deux nuits de def garde à vue. Mm-hmm. je non non benn benn guddi laa def garde bi. ci commissariat central bu bu bu bu benn nuit laa fa def. Mhm. mais fan nga fanaan foofu. Euh, dans des conditions dans des conditions difficiles. waaye ah, la ko nettali. parce que nit ñi dañu. foofu daal dañu foog ne kilifa yi ak euh, le sénégalais lambda. déedéet amul amul xàjj seen de. Mhm. foofu bu ñëwee bañ dugal ci giri yi ci cellules yi. carrelage bi moo fa ne amul matelas amul mergadu amul leneen. amul mat la amul dara. amul dara ci amul mer gàddu ci hmm. ngeen di fanaan.